nu ngeen di dimbale. waaw waaw ah, nu ngeen di dimbale kon nu ngeen ko te da ngeen ci am wàll ndax. incha allah yéen la yàlla te baat mhm. gi. yàllaa ko def kon nu ngeen ko sayte boo xam ne nii lay gën a. Mhm. loolu daan ci ànd ak yéen waaw daan di jox ndigal waaw incha allah. li des moom lépp moom lañ ko delloo yàlla rek. dogalu yàlla rek. dogalu suñu borom du kenn du du kenn lenn dogal dogal. Mhm. Eh, lafa lafa lafa xëy na. dana bari lool. waaye yàlla moo ko fa defoon te du jeexal. dëgg la mën na faa def lu ko ëpp mën na faa def lu gën. loolu rek la. loolu foofu dong lan ne lan nekk. Mhm. ndax noonu dong la demee. Mhm. lépp moom dañ koy delloo ci yàlla rek. Mhm. nga xam ne dogal ba moo xam yàlla mooy def mooy dindi. damay wax ne mooy def mooy def mooy dindi. moo xam li muy def. moo xam ni muy defee. moo xam li ko tax a def. moo xam moo xam li muy def. moo xam ni muy def. moo xam li ko tax di loolu yàlla rek te mooy def mooy dindi kon lépp dañ ko delloo ci moom dellu si nag suñu bopp da xam ne ay jaam rek lañu teg-teg bi dana koo teg ci coobareem dana teg ci coobareem nag moom jëfam du neen waaw yàqul fawul juumul yàqul fawul neen kon na raxen njot ne indi rek lu ko ëpp foo dafiy indi lu ko gën. incha allah ah, nan rafet jot suñu bopp bu baax. xam na itam munu gën a xam suñu bopp. fu mu gën a xam waaye moonu gën a xam suñu bopp waaye moonu gën ji suñu bopp. moonu gën ci suñu bopp kon rafet jot ak dolli ko yaakaar ak nag ni nga wax. Mm-hmm. nag ci li nu di xel yi mu dénk. Eh, la ko ci yéen kilifa yi ni mu jox baatu àdduna bi. Mm-hmm. nu ànd ko yéen defe ko ni ngeen ko xalaate te na mu war a gëne waaw rek moo fi nekk allah alhamdulilah waaw sëy ko déggandoo digal baa ngoog rek buñ jógee ñu ànd rek ah, waaw ñu nag yéen ak mm-hmm. sa ndawal ah, ndawal maire bi ñu ànd waaw ah, ñoom ñëpp samay ndaw lañu ñëpp samay ndaw lañu maa leen déglu rek nuñ ko xalaatee rek ah. nuñ ko xalaatee rek ah. ko daañ moo koy wane daan ak ñoom ah, waaw fa nekk mbooloo ma ñoo ko ànd ba nëgg ni daal bii ci ci ci ñaari waxtu bi bisab tey bi daal ba waxtu wi daal kenn naan ak fi kafe waaye nag ñu ngi ànd ak ñoom di dalal seen xel di taxaw maanaam ak administration bi ñoom ñëpp taxaw waaw bi mu noppee nag ñu ne nañ bala ñoo dara nañ ñëw leeral la ko bi mu fayee. waaw waxtaan bi jërëjëf sant nañ bu baax seen taxawaay bi. taxawaay bi rek ci am solo. dëgg la yéen def ngeen kon leen war taxawaay bi dong moo ci am solo def ngeen leen mooy wax ne taxawaay bi mënut a ñàkk. Hmm. waaye nag moo jafe. moo jafe waaw la ñàkk. Hmm. waaye moo jafe. kon nag ñu jërë ngeen jëf taxawaay bi mën a sëkk tabarkàlla ñu ngi sant di leen bu baax di ñaan ñun ñëpp suñu doon gàtt na taw feex mbir mu a doon lu rëy rëy rek lu tuuti tuuti suñu doon gàtt na ci gàtt na ci ak taw feex rawatina taw lépp day dana dana lépp dana di barke waaw